أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا بلغ رساله القران وادى امانه البيان ونصح الامه ومهوى الظلمه وكسف الغم عن هذه الامه وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فسل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا بقيتي الله تبارك وتعالى ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk jullit yi noo ngi ci weeru décembre ci calendrier nasaraan sunu tollee ci weeru décembre ci waxtu yi lu bare bari ci ay jullit yu réer danañ bokk ci feet yi nga xam ne nasaraan yi ñoo koy organiser ci weer wi te bu nu delluwaatee ci histoire feetu décembre 24 ak 31 danañ fekk muy lu lislaam dàq ndax liñ ci askanale sunu borom subhanahu wa taala te moom yàlla jalla jalaaluhu sunu borom hamidallahu taala nafsa yàlla dafa tagg borom boppam yàlla daa tagg boppam setal ko wa asna alayha wa majjadaha yàlla setal na boppam sellal ko tagg ko kañ ko màggal ko ci lépp luy xeetu manqué-manqué lu sori sunu borom la sunu borom subhanahu wa taala lépp lu doomu aadama xelaat ci xelam ak xolam ci xeeti manqué yi sunu borom walis na loolu moo tax nga dégg ñu naan la alkamaalu lillah yàlla rek moo mat moom sunu borom ci suratul isra aya 111 mu ne wa qul ilhamdulillah yow muhammad buñ la laajee ci mbirum yàlla santal sunu borom alhamdulillah yàlla moomu nga xam ne alladi lam yattaxis walada moom yàlla amul doom sunu borom bi mu santee boppam ba pare dafa dàq ne moom amul doom kon yow mi feetu 24 di feetu yàlla am na doom moo tax ngay feetu déglul borom boobu lan la la wax nee na alhamdulillahi alladi lam yattaxis walada sant ñeel na buur boobu di yàlla nga xam ne jomb naa am doom wa lam yakun lahu sharikun fi lmulk moom yàlla moomu amul ku muy associel wala ku mu dendal wala ku muy bokkal nguur gi amul doom amul ku mu dendal wala ku muy associel wala ku muy bokkal nguuram gi moom yàlla mu ne walam yakun lahu waliyun min azulli wa kabbirhu takbira jalla jalaaluhu sunu borom sunu borom setal na boppam màggal ko kañ ko ne moom amul doom amul dendandoo amul kenn ku muy bokkal nguur kon lan moo war mu ne doomu aadama na màggal yàlla subhanahu wa taala من وتناول القرآن هذه القضية بالحسم القرآن دفع جل توم بوب leeral ko ba mu leer benn point par benn ba mu jeex tàkk yàlla amul doom mbokk yi kon dana nekk gàcce ci ñun waxuma la sax ñuy bàyyi sunu njaboot wala lenn ci ñun dem di feetu ji waaye ma ne jënd ginaar rey ko yaag sa waa kër ngeen lekk ko sax dugg nga ci lu xaraam loolu suñ demee ci téere boobu tudd iqtida sirat al mustaqim cheikh al islam ibnu taymiye dafay wax ne weer wi jënd ci kado maye ko sax araam na ndax dafa am ñu ko moom ñun mbokk ji ci rawatina nag ñun jullit yi tey Sénégal quatre-vingt-quinze pour cent musulmans suñ fi feetoo 24 ñan ñoo ko feetu jullit yi dana nekk gàcce lan ngay feetu ji ñu ne yàlla moo am doom te yàlla ne awma doom suñu borom ne tabaraka allazi nazzala alfurqana ala abdi li yakuna lil alamina nazira الذي له ملك السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا sunu borom ne sell ñel na yàlla moom tabaraka wa taala sunu borom barkeel na moom yàlla mooy ki wàcce alquran ci jaamam boobu tudd muhammad pour ñu waar ci àddina bi pour ñu waar ci ñi nga xam ne dañuy naan yàlla am na doom alquran dafa wàcc pour ñu waar ñooñu ndax ñu deltu ginnaaw nazala alfurqana ala abdihi li yakuna lil alamina nazira alquran dafa wàcc pour ñu waar nit ñi pour ñu delloo leen ci yàlla ba ñu kennal yàlla bàyyi bokkaale bàyyi dendale yàlla kenn wala lenn sunu borom amul moroom ban yàlla mu ne alladi lahu mulku samawati wal ard ki gouverne asamaan ak suuf ki moom asamaan ak la fa nekk moom suuf ak ñi fi nekk ak li fi nekk moom yàlla moomu walam yattaxiz walada amul doom mus ko am te du ko am walam yakun lahu sharikun fi l mulk nguuram gi amul ku mu koy dendal allah amul ku mu koy bokkal wa xalaqa kullu shay'in fa qaddarahu taqdira moom yàlla bind lépp dogal ko ni mu ko neexee mu defe ko noonu amul kenn koo xam ne bi la yàlla di bind daf la ne ndax dama la bëgg a bind daf la góor wala dama laa bëgg a def jigéen wala nanga déedéet sunu borom moo la bind ni ko neexee la la def moo ko dogal ni mu ko neexee wa qad tanawala alquran hadi alqadiya ayuha alahbab bilxismi alquran leeral na tomb boobu ci place yu bare bari ci sa alquran suñ demee ci suratu baqara aya 116 117 wa qaalu taxasa allahu walada yàlla nee na gaa ñi day ña nga dajaloo di peinture seeni tali yi di peinture garab ya ña ngay monte ca dëkk ya ay lamp couleur di ko changé ña ngay orné ña ngay raaxaat ña ngay dër foo tourné gis jeu de lumière yi ñu ne yàlla lan moo tax ñu dajaloo mu ne gaa yi dañoo dajaloo ne ittaxaza allahu walada yàlla am na doom ndeysaan xoolal sunu borom bi mu leen di tontu lan la wax dafa ne subhaana sell ñeel na ma jomb naa ko man yàlla ku manqué mooy am doom waaye ku mat du am doom te yàllaay ki mat keneen ku dul yàlla rek da ngaa manqué subhanahu bal lahu ma fi samawati wal ard sell ñeel na ko moo moom asamaan ak suuf moom yàlla kullun lahu qaanituun ñëpp ay jaamam lañ ñëpp laa wax kenn desul ku sa xel dem rek mooy jaam bi gën a mag ci jaami yàlla yi moo tax gis nga sayduna muhammad alayhi salaatu wasalaam baat boobu mooy baat bi gën a rëy bi ko neex mooy wax leen ma jaamu yàlla yonenti yàlla sunu borom subhanahu wa taala moom yàlla mu ne kullun lahu qaanituun ñépp aji wammutu lañ nekk ay jaam ci kanamam moom yàlla mu ne badi us samawati wal ard maay ki bind asamaan ak suuf maay ki leen fent ki leen créé wa ida qada amran fa innama yaqul lahu kun fa yakun su bëggee dara am rek danaa nekkal mu nekk wa koy yàlla sunu borom wax na ci suratul an'am aya 100 102 wa ja'alu lillahi shuraka al jinni wa khalaqahum yàlla nee na nit ñi jinne yi jaaxal nañ leen ba ñu jël jinne yi associé kook yàlla moo tax bëri na fii kuy jaamu yàlla waaye ci suuf da ngay jaamu ay jinne Sénégal mooy réew mi nga xam ne jaamu yàlla kese kese fi moo fi mbetteel gis kenn kuy jaamu yàlla kese loolay mbetteel ci réew mi ay jinneeg ay xërëm ak ay xarfa fuufa loolu moo indi ngeen di dégg waxtu yi jamono yi ñuy dem ci armée li di sulli néew yi ki sulli néew bu góor bu mag sulli néew bu jigéen bu mag sulli néew bu ndaw am na luñ ko wax parce que jinne yi la ñuy topp maadaama ay xërëm la ñu gëm te xërëm yi lu ñu laaj ñu def loola tax boo demee ci xërëmkat bi mu ne la yaxu néew laa bëgg bu góor wala yaxu néew bu jigéen wala yaxu néew xale nga dem uti ko parce que loolu nga gëm xam nga ne ki tiim ci nit ku dee di ko sulli bi muy dund buñ la laajoon ya xam nga dem indi ko buñ la ne woon yaxu kuy dund la wallahi di nga dem indi ji ko comme dem nga amoo orma ci armeel yi amatoo sutura ragalatoo yàlla ba nga dem jël sa peel di wàqi ku dee koo xam ne li mu tal mooy digganteem ak boroomam nu ko yàlla jéggale nga xotti xormaam génne ko ci mbalaan mi nu ko sàng damm ya xam wala nga dagg mbalaan mi mu sàngoo yor naa benn seede boo xam ne waa ji ba muy sulli néew bi lan la soxla woon awra néew bi la doon dagg ba mu gasee pax bi ba mu xóot mu yoor bopp bi yoor loxo yi paaka baa ngi ci loxo ndeyjoor bi loxo baa ngi ci awra néew bi ba muy dagg bàmmeel bi màbb ci kawam moom waa yooyu mu faatu noonu la waa ji faatoo bi dëkk bi yeewoo fajar ñu gis tànki waa ji ci kaw ndigg waajeeg li jëm kaw yépp a ngi ci biir bàmmeel ñu wooy yi autorité yi wooy police wooy ñëpp ñëw ñu sulli ñu gis paaka beeg fi mu jàpp ñu xam ne kon awra néew bi la soxla woon foofu la nit ñi toll tey ci mbon wa qaalu taxasa allahu walada nee nañ yàlla am na doom allahu akbar moom yàlla mu ne subhanahu huwa alxani allah lahu ma fi samawati wa ma fi l ard sell ñeel na ko moom dafa doylu soxlawul doom doom ki ko soxla mooy ki bëgg a dund xam ne dana feebar dana màgget bëgg naa tiitaru sama doom a ngi nii moo tax jàngeen yàlla ba muy wax tiitar ci àdduna da cee boole doom zuyina linnaas hubu sahawaat min an nisa wal banin taaralal nit ñi àdduna taaralal nit ñi àdduna man yàlla maa taaralal nit ñi àdduna bëgg bànneex ci jigéen ak doom gis nga yàlla nag subhanahu wa taala moom xani dafa doylu walis loolu soxlawu ko moom yàlla moo moom asamaan ak suuf waaw yéen loolu ngeen wax ne yàlla am na doom in andakum min sultaanin bi haza allahu akbar ndax loolu ngeen wax am ngeen ci preuve mën ngeen ko leeral ba yàlla jur doom gaa yi noppi mu ne ataquluna ala allahi ma la taalamun da ngeen di wax ci yàlla lu ngeen xamut da ngeen di fenal yàlla da ngeen di fenal yàlla naan yàlla am na doom ah ngeen di waxal yàlla lu mu amul qul inna allazina yaftaruna ala allahi alkazib la yuflihun yow muhammad waxal ci kaw ñépp ñuy fenal yàlla naan yàlla am na doom du ñu texe ëllëg yowm alqiyamati képp kuy feetu décembre ndax da ngay feetu 24 wala 31 yàlla nee na doo texe ndax da ngay feetu na yàlla am na doom te yàlla amul doom laa yuflihun la wax su ngeen jógee ngeen dem xooli aaya bi mu ngi suratu yunus 68 70 borom bi nee na inna allazina yaftaruuna ala allahi alkazib ñiy fenal yàlla laa yuflihun du ñu texe mukk lu tax ñuy fenal yàlla nag mu ne mataaun fi lxayaati dunya summa ilayna marji'uhum summa nuziquhum alazab alshadid bima kaanu yakfurun bànneexu àdduna rek bëgg a noos rek bëgg a fo bëgg njaaloo bëgg naan sangara dajale kàccoor yu góoreeg yu jigéen yi ñi amul kilifa amuñu diine bëgg àdduna ñu nekkee noonu ba dee yàlla nee na dinaa leen delloosi ci man danaa leen masal mbugalu àdduna alaaxira dinaa leen yóbbu safara ndax dañ maa weddi woon yàlla wax na ci suratul kahf aya 5 dama wàcce alquran pour ñu waar ñi naan yàlla am na doom borom bi nee na wa yunzira allazina qaalu ittaxaza allahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan taxruju min afwahihim in yaquluuna illa kadiba sunu borom nee na maa wàcc alquran pour ñu waar ñi naan yàlla am na doom kon ñi nekk ci mbedd yi ñi nekk ci marché yi ñi nekk ci tailleur yi ñi nekk ñi nekk ku nekk di préparer 24 ak 31 yëgal na sunu borom nee na yéen ñooñu di wax loolu yàlla nee na da ngeen di kàcc yàlla nee na aw ma doom loolu ngeen wax amu leen ci xam-xam wala li abaihim seeni baay sax amuñu xam-xam ci li ngeen di def ak li ngeen wax maa ngi leen di yëgal ne man yàlla kaburat kalimatan taxruju min wax ju rëy ngeen wax ju garaaw kaburat la yàlla wax de yàlla ne rëy na kalimatan baat boo xam ne taxruju min afwaahim day génn ci seen biir seen biir gémmiñ yi wax jooju lan la yàlla mu ne in yaquluuna illa kaziba waxuñu lu dul ay kàcc ay fen man yàlla jomb naa am doom aw ma doom lii doy na ay yi rek doy na ne yàlla amul doom 24 du mbiram jullit 31 du mbiram jullit jullit boo ci rey ginaar da nga kaa ëpp doole dong da nga kaa ëpp doole waaye neexu ko kon nanu ragal yàlla nanu delluwaat tuub bakkaar yu bon yu rëy yi ñuy wax yàlla nee na lii ñi ko wax in yaquluuna illa kadiba waxuñu lu dul ay fen aqulu ma tasma'un wa astaghfiru llaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwa alghafuru rahim الحمد لله وحده ولا نعبد غيره مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في سورة مريم ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون سنو بروم واخنا سي سار سورة سار بو تودو مريم آية فانوير اك جروم sunu borom nee na jalla jalaaluhu yellul ci yàlla tabaraka wa taala muy am doom yellul ci moom ma kaana lillah an yattaxiz min walad yellul ci moom yàlla muy am doom damu ne subhanahu sell ñel nag jomb na am doom moom yàlla jalla jalaaluhu moom yàlla su nammee dara innama amruhu fa innama yaqulu lahu kun fa yakun lu mu bëgg a sàkk danaan ne nekk mu nekk sunu borom wax na ba tey ci saar boobu aya 88 mu ne wa qaalu taxaza arrahmanu walada nee nañ yàlla am na doom nit ñee ko wax de sunu borom nee na laqad jitum shay'an idda indi ngeen wax ju garaaw wax ju doy waar wax ju ñaaw wax ju teggunuwul waxu ku yaruwul waxu yéeféer ngeen wax wax jooju sax takaadu samawaatu yatafattarna minhu asamaana ngi xotteeku ndax wax jooju bi mu ko déggee asamaana ngi xar ndax wax mu ne wa tanshaqqu l ard suufa ngi xar ndax wax jooju ba mu ko déggee mu ne wa taxirul jibaal montagne yaa ngi mab bi ñu déggee wax jooju waaw su asamaan defee réaction montagne yi def ko suuf def ko mbindeef mu ndaw mii moom dong moo ko deful ndax moom moo sos wax ji jinne yi sax weddi nañ ne yàlla am na doom ca suratul jinn bopp saar ba wa annahu taala jaddu rabbina mattaxasa saahibatan wala walada jinne yi sax nee nañ yàlla jomb na am jabar waxuma la ak doom mbindeef yi sax weddi nañ ko waaye mbindeef mii tudd doomu aadama mbindeef mu kàccoore mu nar a fo mii mu nar a fowee dundam moom dong ngay fekk guddi 24 mu defaru fu mu jëm day mooy yàlla day dem di ànd ak ñene yàlla dafa am doom te yàlla weddi loolu sunu borom nee na asamaan a ngi xar suuf di xotteeg montagne yi mab lu tax an daaw lirrahmani walada ndax nee nañ yàlla am na doom te wa ma yambagi lirrahmani an yattaxisa walada yàlla nee na jomb naa man yàlla yellul ci man may am doom wax naa leen am doom ki koy def mooy ku manqué nit pour mu am doom nu muy def ku góor ki nan lay def ku jigéen ki nan lay def loolu ku manqué moo koy def loolu ku matul moo koy def waaye sunu borom jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu mooy borom màgg gi mooy borom mat gi jomb na loolu koo gis mu am doom rek noonu la def léeg-léeg nga dégg ñu naan ay nit ñoom duñ def loolu dañoo bind aaya jox soxna si rek mu naan ëmb xam ngeen ne loolu xel nanguwu ko looloo tax gaa yi naan dafa am koo xam ne ba muy juddu dafa faatu mu jóge ci bàmmeel yi ñëw sëy ak ndaw si mu ëmb xam ngeen ne loolu diine nanguwu ko kenn dong mooy ku mat mooy yàlla keneen ku dul moom da ngaa manqué moo tax yàlla ne ku am doom rek da ngaa manqué bi yàlla ne Isa yàlla la yaayam yàlla la yàlla mu ne xanaa yëgu leen ne ñoom kaana yaakulaani toam ñoom dañuy lekk ñam ku lekk ñam ba pare fan lay reesee toilette ku manqué mooy def loolu sëy ku manqué moo koy def allahu akbar yàlla nekk fa di wax nangam ak nangam dane ñoom ñaar dañuy lekk ku lekk ba pare fu mu jëm loolu yàlla du ko def suñu borom jomb na loolu moo tax mu ne wa ma yambagi lirrahmani an yattaxisa walada in kullu man fi samawati wal ard illa ati rrahmani abda allahuma arina alhaqa haqan warzuqna ittibaa wa arina albatila batilan warzuqna ijtinaba allahuma ya musabitu lqulub ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم فنسألك أن تردنا إلى دينك مردا جميلا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله